واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم ما بك من ñàkk caaxaan ndaxte daa xëy leen te gaaya xëy nag mu dab leen romb leen njëkk leen ma bakk man ñàkki caaxaan ndaxte daa yu loon bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu ca di leen ziyaara di nuyu di ziyaara bu baax alxalifatul am ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ak mbooleem ñi mu jaboote ñëpp di leen nuyu ci di leen ziara di nuyu bu baax di ziara bu baax kilifa kër gi ñu fas yéene tàmbali dugg ci moom ab liggéeyam muy al Cheikh Abdoul Ahad ak njabootam ci njiital Serigne Sidi ak mboolem ñi mu ko bokkal ñëpp ak mboolem njabootu Xadimal Mustafa gépp ak mboolem jullit yépp ñu fas yéenee waxtaana tey benn tomb ci dundam boo xam ne dafay aju ci ab relation ak àdduna bi yëpp ci ay pàcc yu wuute ci faram-fàccewoo anam yu bokkut waaye benn bu ci ne mënta ñàkk ci ak diplomatie ngir kiy dox ci bëgg a doxal mu xam lu ci ne naka la koy ràbbe lu ci ne naka la koy tege lu ci ne la koy doxee ba lam bëgg a am mu am ko ci kon nag kii di Cheikh Abdul Ahad dañu ubbi rek ci laaye alquran ji bismillahi arrahmani irrahim innama almuminuna alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatih zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun alladina yuqimuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul muminuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim sadaqallahu alazim sëriñ bi wax na ci wax ni tuuba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati kon loolu ci la Cheikh Abdoul Ahad mi nekk kunni kii doomu Cheikhul Khadim la gane àdduna ci vers 1914 génn àdduna ci 1982 ñu def ko ci barab bii ñu toog di waxtaan ak yéen ku fi mës a ñëw sa xel dana jàpp dana xalaat li lii de ab denc ngi fi waaye liggéey liggéey bu toll nii ànd ak moom ci biir liggéey bi la tekk rek mooy la mu nekkoon lu sëriñ bi nangu la kon nag moom day kenn la woon koo xam ni ku xamoon la lool ndax kun waajaloon la kun xamaloon la lool ndax kun waajaloon la ci lépp ku amoon yaakaar la ci lépp waaye jullit la woon lool am murit la woon lool ku amoon tab la ca tedd ci jub ca daan jubal ku amoon kàddu la ku rafetoon la ca daan rafetal ku bëggoon lu baax la di dox jëm ca ak lu ci aju waaye ànd ak lépp nag daaw ci bàyyi xel nag ku ko ciy yadd wala ku ko ciy tagg wala ku ko ciy gërëm day def rek li mu war a def ndax ñooñu kat boo ci nekkee ñooñu la alquran di tagg walaayika humul muminuuna xaqan moo taxit bayit woo bii muridun saadiqun bi xidma bi xubbin aw hadiyatin moom ci loolu te la defal ak dundam kon nag relation yi da nga tànn ñetti point muy ak diplomatie Abdul Ahad digganteem ak njabootu boppam ak njabootu diimal Moustapha gi yëpp ak digganteem ak mboolem murid yëpp muy benn ñaareel bi digganteem ak ñi mu bokk leen réew mi muy jullit ñi ak ñi dul ay jullit su boobaa nag da ci dégg ñëpp ñu yore tariqa ak ñu yorewul tariqa ñëpp danañ dugg ci biir bu mujj bi mooy ak ñu yore état moo xam état réew mi la ak waa bitim réew kon ci ñetti point yooyu leen bëgg a dem ci Cheikh la Ahad ci lu gàtt bu ci ne tudd ca benn exemple rek moom diplomatie googu naka la ko doon doxe ak naka la ko doon jëfe ak lan moo tax mu am ci résultat bi mu ci am li ma wax ne nag ku nu waajal ci anam googi ci digganteem gi nga xam ne ca njàng ma la ca xew diir bu gàtt kaamil ba àgg bi mu koy indil sëriñ bi la ca xew xew ca tege ci loxo si Mouhamadul Moustapha mu baax mu tedd ma ca yar ga ca tarbiya ga ca waajal ga ca wàccaay ga digganteem ma si Mouhamadul Fadil ne mu demee woon ba mu waajal ko wërloo ko réew mi mu dem dellu si doxal ko lu bari kenn mel na ne ci diggante ñoom ñaar ñoo ñi kenn ku ci leen na ci yow waajaloon kenn ku ca na dina ci yow it xamaloon nga ko ca kenn ku ne dina ci yow it tegoon nga ko ca moo tax kan su melee nii mu mel doon nag doomi Seexul Xadim nekk ñetteelu xalifaam kon laa xaraaba kon nan jàpp ne kenn ngoogu koo xam ne ku amoon jaxasoo la ak ñépp waaye ku seqoon la tam ak ñëpp ku amoon kàddu la nag mooy lan koo xam ne ci waxam su waxee séddale ko ci ñetti ya bu njëkk mooy ñi mu bokkal pas-pas al iraada mu mustafa kàddu yom leen di dénk ku ko dégg xam ne dal na ñi nga xam ne ñooy ñiy dégg kàddoom di doon ay jullit ca bokk ak moom réew mi fu nu mën a nekk ci kaw suuf gis njariñ lam leen cay wax ak lan ca mën a jële ci njariñ ñoom bi daan nañ gis seen bopp ci kàddoom waaye ñi nga xam ne nag mooy ñu yore réew mi moo xam autorité bi gën a kawe ba bi ci gën a suufe ak tamit luñ ci mën a occupé daan nañ jox daan na leen jox seen wàll daan na leen jox ay kàddoom tam yoo xam ne ku ko mën a déggit da nga xam ni kii kàddu yu jëm si ci ñun waaye yu mat la yu matala la la ndax daan na wax ni lii may wax njariñal kese la lii may wax alquran la lii may wax ni waxi sëriñ bi la kenn ku ci na tam doon nga ci jot sa wàll kenn ku ci ne tamit daa nga ci gis li nga am digganteem ak ñi nga xam ni ñooy mag ñu njëkkoon topp sëriñ bi muy seex si ku ne gis na relation bi doxoon ak ñoom kenn ku ci ne jóg na ñëw sa kër defal la ak ngal ngir suuxat ngir jëmbat ngir dëgëral li nga xam ni moom la la cheikhul xadim batale woon kon loola tam gis nañ ci kilifa yu baree baree baree bari yoo xam ne sëriñ bi def na ay jéego jëm ci ñoom beneen bi ñi nga xam ne mooy ñi mu bokkal sëriñ bi kenn ku ci ne sa njaboot gis na ni mu leen daan taxawoo kenn ku ci ne njabootu boppam it gis na ni mu leen daan taxawoo des na ci joxe misaal rek digganteem ak Cheikh Abdoul Khadir ni mu demee woon nga xam ni day wax ni lépp lu mu mën a doon Cheikh Abdoul Khadir lépp looy wax lu jëm ci diine lépp looy jëflante moom ci kàddu googu dam Cheikh Abdoul Khadir kon noonu mu demee woon ak moom noonu mu seexoon ak moom noonu la jëme woon it ñi ci des ñëpp kon ñu gis ni ci ñi mu bokkal tamit wàcc waay boobu kenn ku ci ne lam seqoon ak yow bàyyi woon na la ci ab cër bu baax diggantee moom nag ak ñi mu bokkaloon tariqa yi danaa ci tudd benn bu màgg bu rëy gan gi nga xam ne defaloon na ko fii Cheikh Ahmad Tidiane si ibnu Sëriñ Babacar di seetu di seetub Alxaaji Malik fii ci Touba ngan la goo xam ba tey taarix fàtteegu ko ca defar ga ca yiw ga ca yiwal ga ci anam yenu ngan nga na mu demee woon ubbi na al afaq gox yu bari yu yaatu waaye ràbb na tamit lu dëgër taxawal na tam lu dëgër loo xam ne ngan googu am na lu mu ubbi lu rëy lu jara bàyyi xel danañ ci fàttaliku tam ci diggante boobu waa bitim réew gis nañ ci ngan goo xam ne kii di président bi nekkoon Guinée Conakry muy Ahmed Sékou Touré nganam googu tam am na lu mu liggéey liggéey bu baax a baax ci diplomatie waxuma la sax diplomatie entre tariqatil mouridiyya ak ñoom seen maam sëriñ bi ca Gabon waaye digganteem ak senegal ak seen maam ca ca Gabon waaw waaye seen digganteem sax ak waa réew mi ak diggante diplomatie état ak état waaye tamit peuple yi seen biir it ngan googu am na lu bari lu mu ci defar te kon wane na ni kon rabtul alaqaat boobu amoon na solo digganteem ak waa biti bi waaye digganteem ak fondation yi nekkoon ci réew mi association yi fi nekk moo xam ne ay jullit lañu wala duñ ay jullit ak yi nga xam ne yu fi nekkoon bootu ci tariqa ak yu bootuwul ci tariqa ak yi nga xam ne organisation yoo xam ne gouvernementale wala non gouvernementale kenn ku ci ne seqoon naak yow jëflante boo xam ni yëg nga ni Touba gi kat am na lu fi xew waaye yëg nga ni réew mi tamit am na lu fi nekk loo xam ne njariñ la gu àdduna bi yëpp war a mën a jariñoo kon loola tam daan na defit ay délégation di yónnee dem ci biti ngir mu ubbeeku ubbeeku ci wàllu xam-xam waaye ubbeeku ci wàllu diplomatie diplomatie boo xam ne ci xam-xam la waaye diplomatie boo xam ne ci culture la waaye diplomatie boo xam ne tamit civilisation la da ci gis bu leer bu yaatu mi barab bi ñu toog te Cheikh Mouhamadou Moustapha Diatara jiite ko ak ñi mu àndal tey lii ci xalaatam ci la bokk muy maktabatu Cheikhul Khadim bibliothèque bi nga xam ne lépp lu nit ki bëgg a xam ci diine dana ko xamee lépp lu bëgg nit xam ci sëriñ bi dana ko xamante lépp lu bëgg nit ki xam ci culture culture mouridisme wala culture adduna bi bu mu mën a doon wala taarix ak domaine bu mu mën a doon rek tey fii ñu toog jëmmal na ràbb googu nga xam ne si Abdul Ahad ubbeekoo na ko ci ak diplomatie gu ràbb kër gi tey ak coono yem ci aju ndax laaj ba mu laajee sëriñ bi ginnaawam bi mu fi bàyyi woon ci nësër bokk na ci benn bii moo tax ci liggéeyam bi mu njëkk a tàmbalee kër gi bokk na ci kon nag taxawaay bi mu ngi nii ñun ñëpp ñu ngi koy gis bokk na ci ubbeeku wet googu tam ci wàllu col gis nañ ni ubbi na ci lu bare bare mooy wane na culture mouridisme fexe woon na ba col goo xam ni képp ku ko gis yow sa bopp dana la tënk ci njub dana la tuum tënk ci baax képp ko la gis it dana tënku ci jub tënku ci baax jëflante yow kon nga gis ni xool gi ñuy xool nit ci col lu am solo la donte nag salaa salaa waxoon na ni suñu borom yittewul col gi xol bala yittewoo waaye nag it li ci biti am na nu muy demee dana yóbbaale la ca biir kon loolu tam ngir waajal nit ki ngir préparer nit ki loolu tamit bàyyi woon na xel li ñu tudde ca daaira bi nga xam ni tasaare na loola ci doxam mooy xisbu tarxiya gis na nu liggéey boobu tam ak jàpp gën jàpp ci loola ak taxawaay boobu tam nga tasaale culture mouridisme ci biti lool tam lu jar a bàyyi xel la ci diplomatie Cheikh Abdou Lahad boo xam ni doxoon na ca liggéey na ca ba mu yaatu lool digganteem ak ñi nga xam ni mooy état bu senegal xëy na bu njëkk digganteem ak Léopold Sédar Senghor xëy na taxul woon mu neex lool lool lool lool waaye tamit taxul woon it mu naqari lool lool ndax ak ma si nag loolu la laaj boo delloo ci histoire da nga gis kii Muawiya ibn Abi Sufyaan daan wax ni ni ma jiitee nit ñi kat yore leen bi mu nekkee amirul muminin damay def ak wëñ rek laa ko jàppe su ma ñoddee ba mu dëgër ma wayafal waaye su ma wayafalee ba mu dëgër ba mu wayaf ma ñodduwaat ngir mu dëgër loolu mooy nit ñi doo leen bàyyi ñu boy ba faw tamit doo leen tamit dëgëral ba duñ mën a lijjanti ci lenn mooy da ngay nekk rek loolu salaa salaa waxoon ni xayru umurin awsatuha li nga xam ne moom la diina bëgg lépp waaye la diina tere tamit lépp jëf lépp ak ba lépp moo tax déclaration boobu mu defoon fii ci Touba wax ni Touba gi kat li islam bëgg ca may sëriñ bi sama bakkan bii laa ci teg kon nag boobu tamit gis nañu ni mu changé ni mu defare ni mu tëj diide dëkk bi ci afaq yoo xam ne tam yu wuute la ba tey jii nit ñëpp ñu ngi ciy teg suñu bët ci tere fi yi fi warta am ci digle fi fi war a am ci nekk fi yun fi war a nekke waaye tamit ci bañ fee nekke tam noo xam ni waree su ko fee nekk loolu tamit gis nañu liggéey ba mu ci liggéey ba ci gën a yaatu beneen digganteem ak le président Abdou Diouf mu nekk diggante boo xam ne relation bu doy waar boo xam ne doxoon na seen diggante ba gis nga déclaration boo mu defoon wax ni képp ko yaakaar Serigne Touba wax naa la na nga ànd ak moom loola nag na nga ko woote loola nag la muy tekki mooy liggéey yi mu taxawaloon ca yoo xam ne faw ab état dana ci jàpp jàppoon na ca nam ca war a jàppe ba moo tax résultat ba mu ci waroon a amit mu am ko kon nag ku la taxawu ci lenn ca soxlawul lenn lu dul lenn taxawu ca tam ci relation wàññiwul dara kon ak diplomatie nag léeg dana laaj bu waree dëgër mu dëgër waaye tamit dana laaj it bu waree wayaf mu wayaf da ngay gis ay relation ci réew mi diggante kër Serigne Touba yi la tàmbalee Mbaba Garas ba Kédougou la tàmbalee Bakel ba Jiwaalo la tàmbalee Dakar ba Côte d'Ivoire la tàmbalee Guinée Conakry ba Douala ou Yaoundé la tàmbalee Gabon ba Bissau Europe dëkk yëpp Asie lu bari america du Nord ba Amérique latine boo demee ma nga Brésil boo demee te ma nga Argentine ba la ngay wàññeeku jëm si jënub Afrique Afrique Sud da nga fekk te loolu li mu ci biir dëkk réew mi ak biti réew mi mooy fenn fut njabootu islaam julli di mën a am fu toog mën faa waxtaane seen pas-pas mu nekk ëtt boo xam ne ci biir réew mi dafay taxaw taxawaayu ambassade ci biti réew sax bari waa na ci réew yoo xam ne boo fu ñëwee nga dem ci ambassade senegal ba fa nag li gën a bari danaan la demal ci kër Sëñ Tuubaa ndax danaan la taxawu danaan la teete danaan la dimbali kon diplomatie boobu xoolal da ci Abdul Ahad liggéey muy taaral ko muy rafetal ko ca loola dafay dellu rek ci islaam ndax sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddee ñëw Madina gis nga yónni woon na ay nit ñu dem di tasaare ji diine kon loola ba tey dafa tege ci ka xas bi nax mi bi nax mi Cheikh Abdoulaye tam liggéey boobu ba tey jii nii ku tudd kër Serigne Touba ci biir réew mi wala ci bitim réew sa xel sa xalaat du dem kenn ku ci moom waaye nag it rakkam ci Cheikh Moutada def na ca te moom it ci ànd ak moom ci jàpp ca ak ci ginnaaw ni tamit ci dëgëral ko ci biir ak ci biti ndax sampub Serigne Touba nag noonu lay demee bi Cheikh Moustapha tàmbale gis nga ku ñëwit am nga loo ca teg ca Cheikh Abdou nag basam dafa dafa dafa dafa nekk lu leer nekk lu yaatu nekk lu fees loo xam ne jullit ñëpp mën nañ koo jariñoo gis nañ tamit imaamu madina yi bin ñëwee fii ci réew mi wala maa yooyu bin fi ñëwee tam seen jaxasoo ajuma jën fi jullee ak Cheikh Abdou Lahad nga gis ni kon loxo loxoom tàllaloon na ko tam ci mbooleem jullit yi seen gox yi nu mën a nekk waaye tàllaloon na ko tamit murid yi fépp fu mën a nekk tàllaloon na tamit sénégalais yi fu mën nekk ci préparé leen loo xam ne foo dem ci àdduna bi ci biir réew mi fii kër Serigne Touba yaa nga fa murid yaa nga fa waaye jullit yi tamit ñaa nga fa di daje dafa waxtaane seen pas-pas dafa waxtaane seenu dund dafa waxtaane seen seen seenu liggéey waaye dafa waxtaane nag li gën a yaatu leen fi indi te bàyyi leen fi fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan ci àdduna bi bu jagee rek ëllëg yowmal xiyaam it dana mën a jag kon daan gis tamit ci moom ci wàllu discours bi ma tuddoon sànq bu daan wax kenn ku ci ne dana ci gis boppam dana yëg boppam su waree dëgër nag dana dëgër waaye su waree waaye fit dana waaye kon ak diplomatie tamit dana doxe noonu ndax alquran nag daa daan wax ni waiddu lahum mastataatu min quwa waajal sa bopp ci force nag lépp da cay bokk ndax bu waye faloon rek amaan na tey taaru murit dana am waaye ndax dana amee ni su waye faloon rek ndax orma ji waaw ndax dana demee su waye faloon rek ndax ndax yu baree bari day am ab laaj waaye nag li mu wax ne su waree dëgër rek dana dëgër ndax dëgër googu dana bijjanti lu bari ndax alquran nag ba muy wax bashir ak nadir wax na ne tamit balligh la ko doon ma maa ursil ilayk wa maa alayhi rasul illa al kon ca moom it waxoon na ci kàdday boppam yéen nab nabiyul mursal dafa am mursal rek am kon képp ku nuy yónni soo waxee ñu ne kon yow mursal nga ci ñooñu ca moom noonu la doon jëfe léeg-léeg mun naat nadir mooy mu xupp mu dëgër lool léeg tamit Bachir mu neex lool wayaf lool tege ci kaw ndodd ñëpp kon nag loola tam daana gis ne ci diplomatie ci wàllu discours bokkoon na ci ci ci ci domaine boobu waaye discours ci ci wàllu tamit diplomatie jëflante jëflante nag benn benn nit wala li ma tudd sàng ci association wala jëflante boo xam ne ci état la jëflanteel wala jëflante boo xam ne ak yenn individu yu mu mën a doon ak groupe la lu mu mën na tudd rek ñenn ñu ci ne bàyyi woon na leen xel xamoon na ni tamit sàmmonte na ak ñoom àqi suñu borom ji tax ndax dandaan jëfandikoo bindu sëriñ bi wax ni sallallahu alayhi wa sallam wa raa'i kon kenn ku ci ne diplomatie boobu sàmmonte ak jëmmi suñu borom mi la bind noonu la daan jëflante ak jaami beneen ba tam ci mën gan ak teral gan ku mu mësaan teral da nga xeeb sa bopp ndax ci mën ga ak ci teraanga ga ca nag sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon wax ne bokk na ci nag gën ngaa màgg gën ngaa mat ci jullit teral sa teral sa mbokk waaye tamit teral sa gan ndax loolu kat loolu bàyyi xel la ndax gan gi am na noo koy terale rek dana am na mu taxawee ak yow ndax daan na wax ne nit ki da koy jàpp mi ngi joxe woon kay misaal ci ak matt kii taxan soo foree ak mat wàcc ko doo am dara waaye matt goo for na ko téye na nga ko def beneen matt goo far nga def ko noonu bu yàggee danga nga amul say mooy nit ki na nga jëflanteeg moom ci njëkk ak ngor ak teraanga mooy tax keneen ku ci na tamit bu agsee nga jëflanteeg moom bu yàggee tam danga nga mën a jëflante ak ñëpp gis nañ tam ci diplomatie am ci wàllu col gi ma tudd sàng gis nañ tamit diplomatie am ci culture ak ubbeeku ndax kat danaa ci dolli misaal ci Seydina Omar Ibn Abdul Aziz bi mu yoree xilaafa gi ci maanu ci mat ci matale dem nu ba azaka buñ ko génnee duñ gis buñ ko jox loola mooy li islaam moom da ko bàyyi ñooñu islaam waaye la mu moomal boppam na mu jëfandikoo ko boppam li ma wane foofu rek mooy Cheikh Abdou Lahad diiru li mu fi toog ku gis ak njabootam da nga laaj ana moom li mu doon am lan la ndax du lenn lu mu leen fàggul du lenn lu mu leen bàyyi lu dul ak baax waaye lépp lu mu mës am jox na ko Serigne Touba misaal bu njëkk fii ci dëkk bi kër Serigne Touba yi fi nekk bu doon teen bi da ko dajale defoon ci turu boppam mu doon yëfi boppam kon tey misaal bi gën a rëy Cheikh Mouhamadou Mountakha mu baax mu tedd mi ayyadullah wa nasara tey fii mu def li gën ci kaw suuf ci yitte yi nga xam ne sëriñ bi digle woon na ko muy jàngu bii di daara ji complexe bi di université bi kon barab bu mel noonu mel na ni du fi ak yeneen kër yi fi nekk nga xam ne ay kër Serigne Touba la lu adduna bi jafe-jafe lu adduna bi xat-xat fu gan mën a jóge ak noo mën a toll si Abdou Lahad faggu woon na fi loo xam ne gan gu ñëw dana am fu la mën a dugal te loola nag mënta ñàkk ci ab relation comme da ngay dem ñu dala dalal waaye mën nga bàyyi xel ñi ñëwit wutal leen barab yoo xam ne yu mat yu mate la su ñëwee tam ñu am fu leen dalal kon loola tam ci li ma wax ni li nga am lépp nga joxe ko sa bopp nga bàyyi ko ak sunu borom ndax ka na sëriñ bi waxoon ni inni uhibbuka hubba zaati moom foofu rek la nekk woon ak Serigne Touba mooy jëmmi ji rek la bëggoon moo tax bàyyilu leen woon lu dul ak baax ak ngën ak ngënale moo tax tamit ak njabootam ak mboole murid di àdd ak ñoom ñëpp seen laxat tey fierté ñëpp la euh, fierté àdduna la ndax li ma wax ni li mu xam wane ci culture ak li mu wane ci façon culture yëpp ak li mu wane ci xam-xam ak li mu wane ci jëflante ak jaxasoo ak waa biir ak waa biti kon diplomatie googu nag mooy diplomatie goo xam ni islam bëgg na ko ci lépp mooy ku jëflante ak yow fekk ci ak baax ku jëflante ak yow gis ak baax ku la dégg baax ku la xam baax ku la gis baax ndax islam diplomatie boobu la bëgg ca moom wane woon na ko ci anam yëpp ndax ci biti kër Serigne boo fa demee da nga xam ne bu amul woon jullit ñiy ñëw dana am jafe-jafe lool foo ni nekk waxataay fii ci biir réew mi at mu jot xew-xew bu jot ñu mën fay daje di fa jàng seen diine dafa xam seenu mbokk fa mën a dimbalante kon diplomatie googu tam ci wàllu dëkkuwaay mënta ñàkk kon tamit dana gis ni wet googu liggéey na ci anam bu yaatu li ma wax sànq digganteem ak ñi mbokkal Serigne Touba waaye ñooñu tamit seeni doom digganteem ak ñoom ak taxaw tamit xam-xam ak ñooñ xam-xam li ma wax ne lool ma waral tey kër gi ñu toog di ci def waxtaan liggéey na ci lu bari def na ci lu bari bu dul woon moom anamu tey nu nuy def dana jafe loolu tamit ci diplomatie ci wàllu culture diplomatie ci wàllu civilisation liggéey bi mu ci liggéey ba tey mi ngi fi tege kon nag dees si taxawlu fii ci sant ak gërëm seen liggéey di maktabatu cheikhul xadim bii nga xam ne cheikh abdul ahad mu baax mi fi la tëdd ci waacaay ko ci na mu mel ak la ca soob suñu borom mu def ko ne ndax li ma wax sànq ne doomu cheikhul xadim nga waaye yemul doon doomi cheikh xadim rek dafa dañ ko jaarale fa cheikhul xadim jaarale woon ñëpp moo tax ñamu bokkal lanu am la xam lanu mën lanu def mu mën ko def kon nag ñun dañ cee dégg ni nan waajal sunu bopp ca waajal sa bopp nag mooy lii buñ koy wax du feeto si rek neex na baax na rafet na déedéet dana bëgg jullit yëpp képp koo xam ne roy lu baax bëgg lu baax moo la tax a jóg nga jógaat nag xool si Abdul Ahad moomu ci lan la nekkoon jëm xool dundam googu lan la ca réalisé fii ci Touba ak fii ci biti day ku xool da nga ci gis jëfam te bu doon boppam rek la doon jëfal amaana kon loolu du mën a am kon nan bàyyi xel suñuy waxtaanee ku baax leen war a mën a jële ci moom mooy roy ay jikkoom ca mooy dëggu ak dëggal roy ay jikkoom ci xam ak xam ne roy ay jikkoom ci ngor roy ay jikkoom ci teraanga waaye roy ak jikkoom ci bëgg lu baax roy ay jikkoom ci yéene ko ak wax ko ak jëf ko ndax loolu kat mooy li ma wax ni fi dunya xasanatan wa fi aaxirati xasanatan loolu mooy tax ñu mën cee àgg kon nag mbokk yi des ci taxawlu fi di dellu du nuyu di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom dëgëral ko te sàmm ko ba lim taxawal lépp di continuité Cheikh Abdou Lahad di continuité Cheikh Salih di continuité mboolem ñi fi wutu Cheikh Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadou Fadil ak ñoom ñoom ñëpp rek suñu borom ak yëfi boppam yi mu xalaat tamit. ngir liggéey boobu diplomatie googu tamit ndax gis nañ ni ñoom ci taxawee gis nañu bu baax baax ñoom ci doxee yaatu na lool rafet na yal na ko suñu dëgëral ca sàmm ko ak mboolem ñu mu àndal liggéey bi yëpp ak njabootu xadiman Moustapha gépp di sant tamit yéen it maktabatu Cheikhul Xadim ci si Cheikh Mouhamed Moustapha ak ñi mu àndal ñëpp it ndax kat yàlla na jaadu na nag lu mel ni su ñëwee tam ñuy dellu si di xalaataat di nafaraat seenu dund ngir mën a xam ñu nit fu ñuy teg suñu bopp ngir loolu tam ñu mën a àgg tam fa mag ñi àggoon loolu tam lu jara bàyyi xel la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wat-tafahumi wa maskana al-irshadi wat-ta'limi wa maskana at-taswibi wat-tafhimi